ma ba ma tàyyi ngeen soog a def lu baax noblesse dafa am ci gëm naa ni noobal ngeen salaamaaleykum mbokki internautes yi ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyooti rek di leen jaajëfal bu baax a baax yéen a ngi si dakar info net Ah, tey nag si ganu kër gi ñu am mbégte dalal doomu ndakaaru doomu mbakke waaye doomu fi nga xam moom mooy Jolof ndax ay waajuram fa la ñu cosaanoo ñu koy jaajëfal bu baax di jaajëfal waa Parcelles Assainies mi nga xam ni fa lay yeewoo waaye ay soppeem kooku mooy mbay Babacar mbay Babacar nag su ko waxee eh, bare na ñu ko xam daanaa ni xam nañ ko ndax bare na ñi nga xam ni nekkoon na seen ginnaaw wala dinay faral nekk seen ginnaaw di leen aw am na album wala ay cassette yu bare wala single yu bare nga xam ni euh, participé na si waaye tamit jot naa génn li nga xam moom mooy euh, ñetti euh, single bis njëkk nag di yaay sargal yaayam sargal tout les mamans également ni no woman do yaay warul jooy jigéen warul jooy comme ni nga ko waxee ah kon nag moom moo bokk na si ñi njëkk sargal nga xam ñooy jigéen waaye tamit sargal na tamit jigéen ba tey mu des si jigéen ñi bégal leen si euh, ñaareelu single bi ñetteel bi nag mu ni waajur euh, euh, ku sentimental la boo xoolee jigéen la ñëw yaay jigéen ba tey waaye waajur également tamit euh, mu mel na rek lépp waajur yi la mu ngi delloo njukkal waajur dinañ si waxtaana ah, lu tax defagul album lu tax si single yi la yam Mbaye Babacar bañ ko xamee ba léegi également tamit euh, fi mu toll waroon na ko weesu bu ñu waxee ak yàlla lu tax yan gàllankoor dinañ si wax daañu waxtaan également si say projet yi nga xam ni moom mi ngi si ndax mi ngi am projet album ndax yeneen projet mi ngi si moom si lan la nekk yooyu si waxtaan si li nga xam moom mooy kër gi la maison comme ñu koy defee saa su waaye tamit dañuy may tey ñaar ba si sax ñetti morso au feeling eh, mu ñëw si ñu waxtaane ko choriste baa ngi fii muy Bokar eh, Sissoko moom la àndal donc euh, un un un grand choriste yore ko li nga xam mooy kora instrument traditionnel africain donc loolu tam c'est important kon nag ñu def lu dul nuyu la jaajëfal la bu baax a baax Mbaye Babacar di la wax salaamaaleykum. waaleykum salaam Makhtar Seck. ziar naa la bu baax a baax maa ngi ziar. Euh, di kontaan ci émission bi di rafetlu jotaay bi. kër gi ñoo ko bokk. donc yow yow suma suma màngal suma xarit nga. te donc yow war nga ci xam dara. sa soppe boole si ma soppe nga. voilà donc da may da nga may bége. waaw yow boo sañoon yow boo bu yow loolu leer na ma ni bu la sunu borom joxoon loolu ak loolu. dëgg la kon kon yow man ngay jëkk teg loxo. kenn waxatu ko. yaa ngi ci yoon boobu parce que musoo def kër goo musa nekk. di ma fa woo juróom juróomi yoon ba ba jëm kaw. Mhm. donc damay kontaan si yow di rafetlu émission bi du nuyu nag ñëpp ñu may seetaan. Mhm. di leen wax ni nag seen doom a ngi nii doomu Dakar Mbacke Jolof. ana waa parcelle mbaa ñu ngi ci jàmm. waa parcelle ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. nooy déggee waa Mbacke. waa Mbacke tamit ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. Eh, Jolof gëj nga fa. ñoom ñu ngi ci jàmm maa ngi fay waaj maa ngi fay waaj dugg incha allah. <laughs> incha allah eh, mbay Babacar donc suñ ko waxee eh, si ban si ban registre ngay woyee. tey bu ñu mënoon tey qualifier mbay Babacar genre musical wala si registre bu muy woyee lan fan lañu la mën a qualifier waaw DJ man man man nga classé ma fenn dafay xaw dafay jafe dafay jafe parce que mënoo ma classé fenn ne non fii kii fii la nekk mhm. parce que donc lu waral loolu waaw parce que non bugguma rester bugguma bugguma rester ci ci ci pax mi mhm. parce que donc musique bi léegi boo xoolee rythme bi ni muy dawee dafa nekk ci benn pax mu ngi mel ni benn tunnel bu rëy rek di wër tunnel bi rek nii la def donc mm-hmm. amoo fenn fooy jaar mm-hmm. du dëgg mais donc loolu moo tax bu tayee maa ngi ci kora bi leneen ak leneen leneen leneen ibbeeku pour mën a am ouverture pour euh, euh, donc maa ngi bàyyi xel sama réew mais maa ngi bàyyi xel euh, niveau international international parce que parce que uh-huh. dafa am yenn way yoo xamante ne aussi boo koy way mm-hmm. nit ñi war la koo traduiral tubaab bi buy déglu gis traduction bi ngay way yenn way yi donc dañ lay zappé quoi je pense que. maanaam su ma la déggee foofu mooy thème. yaa ngi indi thème. thème waaw euh, thème ci loolu lay dox. li ngay dox euh, lan moo la woy loo est-ce que danga am ay mbokk yu woy. ah non <laughs> mbokk yu woy moom franchement. wala parent bu woy. <laughs> franchement aw ma ko. amoo ko sax gars yi dañ naa ma yow war a toog ñu lay woyal. mais loolu loolu je pense que loolu loolu donc. loolu euh, moo amatul moom amatul quoi. Ah, ah, donc sunu borom moo koy def ci doomu aadama. Mhm. donc du man maa ko sama bopp. Mhm. mais moom moo ko suñu borom moom moo ko jagleel loolu. naka la dikkee si yow. waaw ay woyantu rek. Eh. waaw woyantu rek. ndeysaan bëgg way tey ma waroon jàng arab sax maa ngi woon sama benn xarit boo xamante ni ngañ la mi ngi nekk eh, Allemagne. Mm-hmm. tëgg cung moom it. Mm-hmm. moom bu ñu ustaas bi waxee jàng leen maa moom dañu fay nekk ustaas bi ilimaan la tuddoon. Mm-hmm. fa la ñuy nekk di way. bi xuraan yi lañ doon jàpp di ko way di ko way ci ilimaan bi di ko way ci ustaas bi. noonu xam nga way eh, baat bu nekk neex na borom. dëgg nekk ngay sentir sa bopp di dem di dem di dem petit à petit nga xam ni nag yow mi am nga voix te boo ko travaillé dina ñëw loolu moo ci dugal euh, laata ngay def sa single premier single yaay est-ce que ab na ay ay ñoo aw wala ñu la woo seen album wala si seen seen seen seen single waaw single yaay bi ba ma koy def parce que boobu mooy sama fausse enregistrement mhm. boobu mooy boobu laa njëkkee dugg si jow mhm. xam nga donc boobu amoon na fréquentation yi ma doon def ak yenn gars yi donc euh, jotoon naa def benn aw benn benn morceau awu ci Demba a Demba Gise mu jàmm bi morceau jàmm bi mhm. donc fréquentation ma ak moom ñoo doon nekk guddeeg bëccëg waaw mhm. néegam néegam ndeysaan répétition donc morceau yu ci bëri bëri bëri miin nga ko xoolee miin naa ko <laughs> amul lu mën a woy loo xamante ni jaaxal na ma ndeysaan waaw bu ko neexee mu woy sax woo ma ne ma booy demal studio ma ñëw teg li may teg dem mhm. kon donc miinante bu parce que damay woy sax ñu naan ko dégg na la fee ngay woy fekk donc du moom la ah oui xam nga. loolu loolu loolu sunu borom moo def bëri na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni defal naa leen. ay ay ay kër. ay donc euh, dama bëgg ñu ñëw comme da nga indaale Bokar euh, Sissoko le grand choriste également bëgg naa ñu def benn morceau euh, bul ma bàyyi bu ko defee ah. mbay Babacar ànd ak moom jox ko nag ñi nga xam ñooy soppe yi Dakar info point net ganu kër gi mbay Babacar. morceau bi nag. léegi léegi lañ ko lañ ko doon doon doon waxtaanee ma rek moom. léegi dañ si ñam tuuti rek. waaw léegi léegi lañ ko doon waxtaanee ma rek moom. xam nga ndaanaan moom des fois day jékki-jékki rek. improvisé xel mi ba ñëw ci benn affaire mu créé. Mhm. donc loolu la. ca comme te mbëggal dafa xew. Mhm. ma foo xale yi rek. bu ma bàyyee soo demee bàyyi ma ma wee bu ma bàyyee soo ma bàyyee ma wee bu ma bàyyee soo demee bàyyi ma ma wee bu ma bàyyee soo ma bàyyee ma wee bul ma bàyyee soo demee bàyyi ma ma wee bul ma bàyyee su ma bàyyee ma wee eyee eh, ndaw si lee dégg naa sa yaay naan duñ ma la may ñun ñaar ñu sëy lan moo waral wax ju ñaaw joojo lan moo waral xalaat ju ñaaw joojo bëgg naa la bëgg nga ma nañu may ñu sëy ey ah ma bàyye wax ma loo bëgg jali maxtaaroo wax ma lu ma bëgg su la neexee su la neexee ma wayal la liiti liiti su la neexee ma wayal la coro bay samba su la neexee ma wayal la liiti liiti bëgg naa la ndaw si lee Umaro xam na mbëggeel bul ma bàyyee soo demee bàyyi ma ma weet bul ma bàyyee soo ma bàyyee ma weet bul ma bàyyee soo demee bàyyi ma ma weet bookar bul ma bàyyee soo ma bàyyee ma weet bul ma bàyyee soo demee bàyyi ma ma weet ma bàyyee soo ma bàyyee ma wee ndeysaan bàyyi ma ma wéet ma bàyyee bàyyee ma wéet boo ma bàyyee ma weet soxna si Mbaye Babacar ànd ak Babacar Boucar euh, Bokar Sissoko euh, muy rek un très bon son également euh, gis nañu dégg nañ notu koraay également waaye tamit jaajëfal ñëpp xam ñu ngi bàyyi xel su ñu ñëwee delluwaat tuuti si li nga xam mooy sa premier single. yaay euh, e euh, parce que moom moo la génne moo la propulsé. Mm-hmm. ñu bari si la ñu découvrir Mbaye Babacar. et à l'instant boobu tamit nga def vidéo vidéo bu nice macha allah. Euh, dara umpuñu si. mais nga commencé également jouer live boobu gars yi xale yi commencé gu ñu <laughs> donc loolu lu ñu fekkee la mën nga ñëw tuuti si si si si si single boobu. Euh, réalisation bi maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee rajo parcelle bi jàppoo nga ñëw indil ñu single bi mm, donc ñu présenté ñu la ni nañ si jàpp mais depuis ñu déggu mais macha allah ñëwaatal tuuti rek <laughs> si si si single boobu ak réalisation single boobu ndeysaan single boobu xam nga coono coono rek mooy fay ndeysaan parce que single boobu ba ma koy def dama ci dajoon lu métti métti métti maa ngi ko enregistré studio MF Modou Fall Modou Fall son boobu ma koy enregistré jooy sax def naa ko parce que dama daan ñëw jàppante studio xam nga bëgg affaire yi. Mm-hmm. xam nga Modou Fall tamit jàpp ci ne ma nii ngay wayee jox ma technique. ndeysaan xam nga ma dit ma ma yombalal ko ko dëgër ma bopp aussi ma def ko. ndeysaan ma pare déglu ma xam ni loolu du man quoi. lu mu doon wax ah d'accord studio bi la bi la. xam nga parce que mm-hmm. donc am yenn studio yoo xam boo fay enregistré duñ la bàyyi nga génnee ñëw def lu neex génnee. absolument parce que boo yàkkamtee rek donc da ngay génne loo xamante ni nit ñi duñ ko mën a constater. Mm-hmm. du yàgg si ñëw du yàgg déglu. parce que son yaay bi yàgg na. mais heure boo ko dégloo. parce que musique bi dafa down. da nga koy mën a déglu dafa nice da nga koy mën a déglu. Mhm. xam nga bëriwul bruit. Mhm. loolu euh, ñu jóge ci son bi hmm, ñu dem man ni ko seen man ni ko rajo boobu yaa ngi woon fu Jàppo FM. Jàppo FM. donc ngeen si def lu rafet amoon concert bu amoon foofu. waaw 72 heures Jàppo 72 heures Jàppo FM. alors que ma ma daje benn ak ju waaju naan Omar Samba bay waaw donc mu déglu ma. waaw mhm. ah, donc bu ngi doon wër xale boo xamante ni euh, mën na lu muy def pour mu jàppale ko. yàlla def nag man ma dal ci ay loxoom ñu commencé première live bi ma def ci moom laa ko defee. ndeysaan muy Maria muy euh, ñeente taawam. ñeente taawam Bambilor. dëgg la boobu sax parce que yaa ngi woon foofu. waaw monsieur live dëggal fit rek te boobu. foofu si mbéy. ñu ngi yëpp ñu ngi leen di te boobu yàlla xam na ni live mosuma ko woon def. mais ma dëgër fit. Uh-huh. ak ak ak gëm-gëm ak ak déglu. Mm-hmm. xam nga. ak fréquentation bi moo doon fréquentant musiciens yi. Mhm. donc ñu dem foofu mu nice ñu war a def album bi. xam nga promotion bi même clip bi sax moom moo def clip bi. ndeysaan fay clip bi Papis ñaa tourné ko ñuy dem di dem affaire yi yaa ma gën a xam. waaw waaw donc affaire yi nekkul da ngay ñëw nii rek dafa nga da war a pare ci de ñaari coté mhm. ba yàlla def mu. Euh, jotul jotul li daal maanaam liggéey bi. dëgg la euh, ñu dem euh, si ñaareel bi muy jigéen. Mhm. deuxième single bi. Mhm. lan nga ci wax. deuxième single bi jigéen maa ngi ci wax jigéen de ko sagal. Mhm. moo gën nga koy fitnaal ndax moo jur wàlliyu moo jur xut bu samaan. xam nga lu ma la. maa ngi koy way loolu pare way ci mbëggeel. ndeysaan c'est maa ngi ci way nit ñi maanaam ñu yor seeni soxna. soxna di leen di leen di leen di leen toroxal. di leen méttital. donc te jigéen xam kenn waru ko def loolu. absolument euh, donc maa ngi maa ngi masawu soxna soosu dëgg la mi ngi si réseaux sociaux yi réseaux maa ngi koy gis maa ngi maa ngi maa ngi koy méttiwul lu bu baax a baax. donc xaw ma lu ñu ñoom ñaar. mais ëpp na waaw mais ëpp na moom lu mu la mën a def. wax dëgg yàlla parce que waroo ko dóor ba yàq yaramam. dëgg waaw loolu laa ci way. final final jigéen. final jigéen ñu dem si waajur yi. waajur sa troisième single. troisième single bi waajur tamit maa ngi ñëwaat rek di si conseil bi. waaw waajur maa ngi ñëw naan maa ngi ñëw naan sama yaay sant naa la yaay ndax yaa ma baay bu baax sant naa la baay ndax yaa ma yaay ju baax. Mhm. bu la yàlla mayee teraanga yow doom. Mhm. na nga fonk say waajur bul mës doon sàmba alaar wala ngay doon kumba alaar ndax bu leen jooyloo bu leen merloo ñax ñoom ñooy say waajur. ndeysaan après ma dellu si sa waajur bu góor nu mu mën a mel. Mhm. ah nangul ni yow sa baay la. dëgg bu dee dafay màndi. wala muy def naka su dul noonu. yow nangul ni sa papa la. dëgg dëgg loolu maa ngi koy way ci loolu. yaa ngi koy way euh, euh, bu ñu ñëwee taxaw si sànq li ngay wax si thème si li ngay bind euh, si yan gis nañu jafe-jafe àdduna gis nañu waajur yaay jigéen donc mu mel na yow danga favoriser li nga xam ni moom mooy moom la société sénégalaise laaj. Mhm. Mbaye Babacar. waaw loolu laa favoriser parce que li may. parce que boo nekkee ci benn environnement boo xamante da ngay gis lii gis lii. Mhm. des fois ngay toog ak ay ñoo xamante ni donc seen xel yàlla kiiwul noonu. Mhm. dangay gis lu bëri dangay xam lu bëri. Mhm. xam nga loolu mooy tax parce que léegi ma musique boobu bi may def. parce que thème boo xoolee. boo xoolee musique bi léegi boo déglu. Mhm. daanaka doo fi gis thème. dëgg nañu waxante dëgg quoi. dëgg gars yi slogan la ñuy gën a. slogan ñuy gën a ñëw xam nga ñëw wala rythme wala rythme bi ñëw noonu. Mhm. xam nga euh, euh, je pense que loolu ñu ngi bàyyi suñu yoon. Mhm. thème moom moo la mën a jaay niveau international. parce que munoo li ma wax naa ko sànq suñu waxtaan suñu biir munoo way yenn way nit ñi di la ko traduire. en français munul nekk nit ñi di la ko lire munul nekk. <laughs> wallaay azim. non nga way thème nit ñi déglu ko ne kii li may way c'est ñi mën laa woo ci yenn affaires yu ay mag mën a nekk man ci yooyu lay dox parce que woy ma rek pour fii ah mhm. woy ma rek pour Sénégal donc xam naa Sénégal rythme bu ñuy dawee mën naa ko mhm. te xam naa lu koy defee mhm. te yow xam nga ma def naa théâtre def naa art xam naa musique xam nga mën naa def léegi affaire loo xamante ni day jënd bomb mais donc du am da ngay sa yoon quoi da sa yoon ah. euh, mais euh, si njëlbeen maa ngi koy wax euh, Mbaye Babacar yàgg na. Euh, yaay macha allah ban année nga ko génne woon. su ma jumlee yaay bi c'est du 2005. Ah, waaw si ah, waaw voilà yàgg xaw na yàgg mi ngi bëgg yàgg ah. Euh, boobu ba tey Mbaye Babacar jàpp naa ni man personnellement waroon nga weesu fii. dëgg la euh, lan la lan mooy problème bi lan mooy jafe-jafe yi su fekkee am na. waaw waaw xëy na sunu borom tamit aussi donc. wala aussi tamit comme ni nga wax noonu ah, Euh, euh, li buzz la yi gën a soxla que thème yi waaw li buzz gën soxla ay yooyu ay olalaak yooyu ay yenn ah. yooyu xam nga donc donc te man yooyu franchement mën naa ko mais woy ma pour woy ma pour pour kii quoi man damay woy pour ëllëg ëllëg Youssou Ndour boo xoolee discuteur may ay caaxaan may ko ko dëgg ñoom Fada Freddy yi dëgg niveau international Bab Mal dëgg ñooñu caaxaan mayu leen lu ñu am mhm. du dëgg ah mhm. waaw loolu caaxaan mayu leen ko te ay na nañu way di way loo xamante ni mi ngi ñi parce que xëcc bu daggul rek dana dëkk donc am naa yeneen morceaux yoo xamante ni mhm. danaa ko way mais tamit du ma wàcc fi ma nekk su ma nekk en tant que jeune am ah. yi nga xam ne war nga ko mën a way war dama koy way waaw mariage yeeg yooyu yu may joué damay way ba naan ne kii di moom parce que damay joué mariage da ngay tàmm boobu parce que mënoo joué mariage naan da ngay ñëw di way toog mariage bi nit ñi toog. nga te mooy ñëw di way ay way koo xamante ni dafa gaañu. di tooyal seen xol yooyu. donc mën nga ci jouer ñaari morceau. parce que am mm-hmm. naa morceau boo xamante ni xarit maa ngi ci doon way sama xarit Njiin Saw. Mm-hmm. Euh, morceau boobu heure bu way. lu tax lu tax. parce que donc peut am na ñoo xamante ni ñu ngi fa toog. Mm-hmm. amoon nañ benn xarit boo xamante ni. ku la jégal woon ku leen jege woon boo xamante ni. duñ ko bokk duñ ko weccoo kenn far la def mu jël ko. ndeysaan. xam nga yàlla xëpp àjjana waaw wala nga am waajur bu góor bu génn mm-hmm. àdduna wala nga am mag bu góor bu génn àdduna te way dama ko ci laaxaale mm-hmm. dama koy way gis nit ñi ndeysaan ñu ñuy ñu ñuy kiiwee quoi ñu ñu ñuy xam nga mm-hmm. léegi dama moom lay tijjee après ma dugg ambiance nga dem ambiance man noonu lay def samay samay kii lan nga yaakaar ni eh, moo la bu fekkee ni eh, jàpp naa ni <laughs> am na am na lu téye lan nga yaakaar ni eh, tey jii mooy mooy say jafe-jafe ba tey Mbaye Babacar vraiment ni ñu ko waroon déggee déggu yu ñu ko noonu waaw waaw li ma téye dama yaakaar ne dafa jotagul rek. Hmm. waaw loolu yaakaar naa ko suñu borom. Hmm. xëy na moom moom moom mi xool muy séddale. Hmm. xëy na suñu borom moom moom li ma jëntal bis bu ñëwee rek dana ne il est temps. il est temps waaw parce que tamit maa ngi def sama kéemtulaay kàttan parce que musique bi boo boo gisee di jamaxu musique bi léegi fond la. boo amul ku la gëm dëgg-dëgg parce que boo leen fiy dégg yëpp dañoo am ñu leen gëm ah? ne leen dem leen ngeen tëddi lépp man maa koy def jox leen lépp teg leen mettre leen teg leen ci conditions yi bien mm-hmm. man nag awma loolu maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax mm-hmm. parce que yooyu yaakaar naa ne bu ma ko amoon fu ñuy dégg grand yi mm-hmm. parce que mën naa woy te xam naa li may woy lan la du dëgg mbay est-ce que loolu rek doy na cest à am na ñu ñu bari ñu fi am moyen euh, te demuñu Sénégal la ñu nekk Afrique la ñu ah, nekk Mbaye bëggoon mu wax ko mais seetaan naa la si benn concert live nga ñëw di bëf anniversaire la benn artiste de la place euh, nga nekk seen bi ak artiste boobu ak beneen artiste bu taxaw nga mel na sax loo lu siif mais si sa biir way danga nga ne ba seet rek syncope sa daanu ba tey kenn xamul la moo la daaneel mbay lan la c'est quoi euh, da nga négligé yenn yi lan la lan la lan moo la daaneel woon keroog yow lan nga yaakaar ne moo la daaneel woon da nga feebaroon wala parce que chaque fois ma bëgg la si laaj da ngay daw da ngay xaw a daw kii bii quoi keroog loo yëg. non. da nga feebaroon. no xam nga affaire yi musique dafa nekk loo xamante ni aussi ah, man nag man dama dama nekk benn kii daal maanaam ñi ngi laay dund quoi. nii quoi waaw ah, ni nga laay Baye Fall di dem nii rek Baye Fall man loolu ba ma arrivé nag ci laa doog a xam ni man damay caaxaan xëy na lii moo ma woon ah seen xëy na loolu la parce que boo loolu moo gën a yokk nag ma reculer ragal yéen yi parce que boo xoolee Mbaye Babacar boo koy wër ci boîte yi doo ko gis. mais jour boobu feebaroo amoo da amoo dara loo doon metti. non non ngay ñëw ci soirée bi. dara méttiwuma dara maa ngi maa ngi woon sant kuul toog. parce que tamit ku ne xam ne ni man moom octave moom. waaw yëkkati. octave moom damay woy octave. waaw. mucc ma cee am problème. fi ngay woyee mu kawe. donc keroog woyu ma octave boo xamante ni donc war naa mën a daanu. te li ma defoon li ma li ma li ma li ma daanaloon man xam naa ko. Hmm. donc damay bàyyi lépp loxo suñu borom. donc parce que nit moom bu ko jaralee ba muy def yenn affaires yi. léegi gëm nga mystique wala gëmoo mystique xarfa xuufa gëm baax sax xam nga gars yi dañ naan ku gëmul xarfa xuufa xarfa la fuuf <laughs> yee da fuuf bu baax sax fu mu ni kay bu may ñëw fii sax damaa mi leenu ba yàq <laughs> déggoo lu ma la wax fu mu ni kay mayu ma kenn dara waaw parce que loolu tamit aussi mhm. mënoon naa fa jaare daf la yee daf ma yee mënoon naa fa jaare tamit parce que ni ma daanoo woon mhm. je pense que yow yaa ngi woon foofu ak ñoom caamaas ñi nekkoon sama côté ñoo ñoo xamoon parce que am na yenn waykat yi fa nekkoon gis nañ ma ñu jël ma musiciens yi yi doon jouer sax ñoo bàyyi instruments yi jël ma teg ma ci canapé bi donc ma doon yëg loo xamante ni sama yaram bi xaw ma woon mu doon noonu affaire yooyu mais sant yàlla ba ma yàlla mayee donc ma ma ma ma mën a nekkaat si yoon bi daal nekk si bi waaw fu mu daal yaa ngi woy léegi macha allah maa ngi fu mu toll nii kay damay faraale <laughs> voilà dafay faraale Mbaye Babacar ganu kër gi Dakar info point net ñu dem si pour le deuxième son ñaareelu morceau bi eh, nga ni la sunu kana nani ah kana nani def naa non j'ai bien prononcé Bokar non de Zulu kana nani ah, Zulu kana nani c'est ñu dem ndeysaan yaay ndey na laawoo kana nani ginyaye fuye masa sulu kana nani ginyaye fuye sulu kana nani ginyaye fuye masa sulu kana nani ginyaye fuye adduna adduna ñi bàkki adduna jaraluma lii waaw waaw waaw adduna jaraluma lii waaw jaralu ma lii àdduna ku ko jàpp yaa yi bànkaas bu ndaw ndaw la te saa bu demee nga dugg jimaxu xolal ma lii lii de doy na waa bu la àdduna jaralee nga yàqu doomu jàmbur ngir alalu àdduna àdduna jaralu ma lii addi suuli nen ak i toji nen su la yàlla mayee su la yàlla mayee maxtaaroo yennal sa morom jàmm ndax loolu moo lay mën a jàmmal sama waa dan na way naan yaay bindal na ma ñetti laaya baay bindal na ma ñetti laayo bi ma sango ko man bi ma naan ko bi ma def ko man sar bi may woyee ah dootuma dalate waaw ndeysaan kana nani nyayefu ya masasu kana nani nyayefu ya sulukana nani nyayefu ya masasu kana nani nyayefu ya Listen. sawaji saje yu bàyyi li ngay bàkkoo sa waji saaje yu bàyyi li ngay Marcel en tout cas c'est c'est euh, je pense que ni lii euh, bu ñu gisee li li ngeen improviser taf taf euh, musique mbay Babacar yomb na est-ce que parce que est-ce que li yomb na. musique yombul yomb donc dafay nekk ci yow tamit mhm. bu nekkee ci yow rek mën nga am lu ne. Mhm. bu nekkee ci yow donc facilité bu nekk ngay am mhm. kii dama duñ répété. Bokar dama gis léegi. moom moom déjà bëgg na en tout cas bi ngi joué mais kontaan na parce que gis ngi c'est-à-dire yaa ngi ngi ngi siy woy. maa ngi siy woy cest à sax joué loo. si waaw si parce que am na li li li may way ni donc xëy na mu ngi koy doog a dégg. ndeysaan mu may koj. Mhm, ndeysaan moom mi ngi mi ngi mi maa ngi sukk mi ngi sukkandiku ci man. ndeysaan man maa ngi sukkandiku ci moom. kon musique dialogue la. dialogue la parce que moom moom suma xarit la. Mhm. bëri na ay El Hadj Cissé Abdou Samb ñoom ñëpp mais moom suma xarit la. parce que man kooraa dafa bokk ci samay rawaan. macha allah donc barki démb la jógee France ñëw. daf jógee tournée. Mm-hmm. ba ma ko woowee. Mm-hmm. dama ko woo rek man ma yow amul problème woo ma après jël jaar fi jël ma ñu dem donc ba muy ñëw. ma woo ko mu ñëw donc moom aw ma fayam. Mm-hmm. du fi dong. boo ko da ngay faral dafay moom day way wala day joué. day way Paris dafay toj. Mm. tubaab yi fi mu moom dong la ñu wër. ah waaw léegi de façon dina la dalal si gan bi si kër gi incha allah donc après dañuy xool rek eh, ban jour lañ koy lañ koy taxawal nga ñëw indi kooraay ñu ñu xool voilà amin amin amin amin yaa rabbi maa maa lay aw voilà mi goog voilà mi goog bu boobaa nga toog fii mu toog fële rek waaw waaw incha allah merci beaucoup incha allah eh, Mbaye eh, lan mooy say projet est-ce que da nga am projet album actuellement si lan la ñu mën a xaar mbay Babacar actuellement nag nekk ma ci projet album comme ni ma la waxee rek damay dajale. dajale xam nga man fu mu toll nii affaire yi sama poche bopp lay lay lay xam nga kenn yëkkatiwul ne ma am. donc boo koy xaar yaakaar naa ni euh, euh, euh, dina yéex. day métti dëgg nit ñi nit ñi moom dañuy xaar ba ba ba ba cin li ba ceeb bi kii rek ñu doog a ñëw. soog a ñëw lu sotti la ñuy xaar lu la ñuy xaar. donc nag moo tax ma ma ma may xaar sama tànk tubéy di def. Mhm. parce que affaire yi du ça parce que du course vitesse fond la. Mhm. tamit boo ko jàppee course vitesse tamit doo sori. xam nga fond la da ngay def nànk-nànk bu ma yoree xaalis dem studio. fay woo musiciens yi ñu enregistré ma ma bañ koo jénnee dëxëñ def noonu dajale am lu ma yëgu clip ku ne xam nga ni léegi musique euh, boo musique bi dafa day yéeg niveau il faut ngay xool yan système ngay mën a kii pour toog xam nga mais mënoon naa sax kii ma jénnee benn studio yaa ngi fi dem enregistré lu ma neex jénne ko mais donc après daam fooyam d' accord xam nga mais yaa ngi def ay live quand maa ngi def live si xew yi ay after work maa ngi joué ci mariage yi mhm. donc loolu after work yi donc dama ko arrêté woon même soirée yi mhm. parce que gëj naa joué depuis décembre donc euh, euh, am na ay ay bis yu may waaj gars yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi xool yan yan local lañ ko defee yan milieu mhm. ñu ngi ci fan yi yëpp yëpp di ci dox donc xam naa ni loolu loolu bu sottee dinaa ñëw ci kër gi rek incha allah ñu àndandoog yéen rek ah, incha allah ñu àndandoog yow ah, yow su suñu nga si lan ngay wax say leen di le mot maa ngi leen di wax man maa ngi nii daal mhm. seen doom a ngi nii mhm. xam naa ni gëjoon nañ maa gis parce que Mbaye Babacar bi je parce que man sama tur la nit ñi gën a xam que jëm ji waaw loolu am na parce que damay des fois damay damay damay ak ay nit ñu dégg tur bi ne ma ah kon yow la parce que image bi parce que bëriwuma li may feeñ li may li may feeñ ci kii yeeg yooyu mhm. donc xëy na loolu sant yàlla la peut-être loolu tamit mën na la may dara aussi donc di leen wax ni maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax bu ñu gisee toogaay bi nii mhm. donc bëgg def loo génnee loo xamante ni ñoom heure bu ñu ko déggee dañuy am dañuy am xool kontaan mhm. parce que ci liggéey doomu laa nekk loolu moo tax toogaay bi ni mais du dara dara dara dara maa ngi wàcc ay affaire donc bu génnee di ngeen kontaan incha allah incha allah merci beaucoup Mbaye ñu ngi lay jaajëfal euh, di la souhaiter un très bon vent euh, Bokar euh, sénégalais nga wala malien wala lépp am nga ay waajur foofu am nga am nga kii Sénégal moo gën. ok fan nga juddoo fii wala Dakar voilà il sénégal sénégalais xaar leen ko dinañ ko dalal si kër gi comme ganu kër gi incha allah sous peu de temps bu ko defee muy indi kawraay mbay toog fële côté ba di ko aw incha allah bu ko defee ñu xool aw à découvrir merci beaucoup Bokar euh, Sissoko ñu koy béggee merci mbay Babacar di remercier également euh, suma réalisateur di Omzo ñu koy jaajëfal baax a baax a baax di béggee également soppey Mbaye Babacar waa Mbacké waaye fàttewuñ tamit waa fa nga xam moom mooy Jolof waa Parcelles Assainies ñu ngi leen di béggi eh, kontaan si yëpp ñi nga xam ñu ngi doon bàyyi xel depuis le début ñu ngi leen jaajëfal di leen daje eh, sous peu de temps ou prochainement si beneen numéro ganu kër gi ak beneen daanaan incha allah jaajëf ba soog a def